mbok internet mbok Cap TV ñi ngi amane mbekté di amar contenté te lok yeen fi yaakarna ki di feeñ écran bi mom xam ngeen ko ci biir Cap TV ñi gën ko xam ci Mame Gorgui Junior nee na nag changé na tour xamna naa loolu yëpp après dinañ ci gëna yaatal ak tamit ban déclaration la nara def tay ji ñu bàyyi ko mu nuyo mbok internet mam gor Gorgui ñu ngi lay siyaar surtout maa ngi ziar di nuyu wa Cap TV yëp di nuyu Sénégal di nuyu aduna xama nga di nuyu sama gaay ma andal ni ñom jogu Alpha xam nga ñuy waa Cap TV yëpp ñoom Diop Siteu maa lay bëggee bu baax xam nga waaw. kon nu ma ko waxee sànq maam góor gi ku ko xamoon xamee ko yëmbal marin wax dëgg yàlla mu def ay sorte yoo xamante ni eh, stade Iba Mar wane na fulla ak faydaam làmb nag da ngay bëree am wala nga bëree ñàkk. ñu gis ko tamit ci beneen facette bo nga xamante ni mu si la doon daanee dooleem toppoon benn ministre doon ko garder di dugg ak di génn ba mu koñe woon ko si yu bëri si wàllum entraînement ak yooyu mais avant ñu ñëw foofu déclaration bu ñu dégg maam da ngaa changé tour changé wàllu écrit wala da ngaa changé tour écrit ba des fi non changé wu ma écrit écrit bi ma nekkoon laa nekk ba léegi yëmbal marin waaw mais tour bi moom sama nom vrai laa wuyoo rek Lamine Mbër loolu laa wuyoo jeex na minbar bi nga indi dindi maam góor gi. waaw lan moo waral nga dindi maam góor gi defe di nga si am moo tax wala. non maam góor gi da dafa diis borom dama ko delloo borom kaa tur bi daa diis. Mhm. daa diis moo tax nga gisoo sa bopp daal te lan moo waral changé bi. changé bi non dara dama wuyoo sama tur rek parce que xam naa ne man du ma cuune. Mhm. waaw sama tur man def naa ci lu ne moo tax mu jëlaat sama tur. wuyoo Lamine Mbër bi te en même temps boo ñëwee sama koñ sax Lamine Mbër lañ gën a xam de. Lamine Mbër lañ gën a xam mu doon bëree mbapat wala. waaw noo Lamine bi xam nga dafa juddoo fi yeroo fi. xam nga ñu xam ma ci noonu. moo tax ba léegi nii mun nga ñëw fenn di laajte maam góor gi ñun la non kan ngay wax yow Lamine Mbër nga ne waaw ñu yóbbu la. Hmm. Lamine Mbër sax moo gën a siiw yëmbal. moo gën a siiw yëmbal léegi loolu la waral nga delloo jël Lamine Lamine Mbër bi ah, ma delloo ko. Hmm. kon mën nañoo jàpp ne bu ñëwaat ci beneen stade. non Lamine Mbër muy Iba Mar muy feneen Lamine Mbër bi mooy ñëw. Lamine Mbër laa yow incha allah. Hmm. boo ñu mën a fàttali maam góor gi jaar jaaram bon maam góor gi jaar jaaram fi mu toll nii day day soog a dugg ci làmb Lamine Mbër instant day soog a dugg ci làmb zéro palmarès. non léegi moom xas jàll na ba pare. waaw amatul zéro palmarès kay moom mu ngi ciy boole dañ ko ciy boole waale. non non instant nii dama sama sama carrière dama ko commencé a zéro parce que mun naa ne daaw. dem naa ci bëri ci àll bi bëri Iba xam nga dafa ay palmarès yu baax xam nga. Mm-hmm. jël fa ay tournois jël fa lu nekk mais. loolu yëpp dama koy sànni sama ginnaaw instant bii nii combat bii may jëlaat nii mooy sama premier combat. waaw. mooy waaw moom nga nar indi Lamine mbër bi. moom laa indi ak Lamine mbër bi. mais li ci ginnaaw loolu zéro palmarès. non li si gannaaw moom CNG boo demee bind nañ ko ba pare moom kay xanaa Lamine mbër bi ndax da ngay fas yéene indi lu bees wala nag ba tey ndax. waaw damay indi damay indi lu bees tàq. indil gaay problème nag. Mhm. waaw. damay indi lu bees tax indil gars yi problème. indil gars yi problème. indil gars yi problème si xeex wala si bëree. ci xeex ci bëree yëpp. te ñi ma war a jël. soo bëggee ma wax la ko léegi. loolu yëpp après dinañ ci ñëw. waaw mi ngi mhm. damay bëre ñoom te ñoom dañ may jël par force sax. non loolu moom de par force. làmb par force la. làmb ku bëree mbër nga ku bëreewul doo mbër ku daan dem ku daanu dem. te yow gën nga bëri déggoo lu ma la wax ñi ma dama leen ni par force bu ñu bëggee bu ñu ñëwee ma may leen revanche ba pare nag jële ñu bëggul bëre ak man ma bëre ak ñoom force parce que bu dul ren dañuy bëre déwén mhm. waaw bu dul ren dañuy bëre déwén dañuy bëre déwén waaw ñu del si waat tuuti si gannaaw maam góor gi yëmbal la juddee wala da ngaa màgg ñëw yëmbal man sama lépp diggante Medina la ak yëmbal Medina ak yëmbal waaw mhm. Medina laa juddoo yëmbal laa màggee mhm. fi laa fooye fi laa defee lépp. yaa ngi dégg mais damay jóge yëmbal yenn saa yi ma nekk maintenant yenn saa ma nekk fii bi ma commencé nag gën a dëgër nag. Mhm. yëmbal laa gën a féetee. Mhm. noonu la demee yëmbal nga gën a féetoo maam maam góor gi lan la. maam góor la micro bi téye ko. sama foo. waaw maam zo fu nga. wala an bal ngay siifur wala lan nga xamante ne yaa ngi koy comme sport bu bokk ak làmb comme xalé yëpp rek fubal na xex na bëre na def na lepp ah. waaw parce que suma ma mësoon jàng ba wàcc. Mhm. damay nekk ci mbedd bi. Mhm. di bëree chaque jour damay tar añ talibé ñoy may may añ. ñoo may añ. ma añ ci talibé mhm. chaque jour damay tardé añ. damay tardé añ su ma jàngi ba wàcc wala même bi may jàng métier man dama don jàng métier ter bi may gëna a nekk booy. mais suma ma dama am ben euh, boutique bu nekkon suñ koñ comme qu'est-ce que wéñ yoy non ku tuddu ron Mhm. chaque jour daf ñuy tegal deux cent ñuy bëre. Mhm. boobu maa ngi gën a nekk tout tànk. Mhm. boobu yaa ngi gën a nekk tu tànk. loolu quartier basse la woon quoi. quartier basse la woon quartier bi waaw. Mamor Mam góor gi ban poste la doon football ba ngay fooyee football. milieu terrain milieu terrain ay nga ci torop wala. ah daan naa ci def lu ñu ma soxla de. Ah. waaw daan nga ci def luñ la soxlaa. waaw troisième mi-temps wala deuxième mi-temps nga doon dugg. troisième mi-temps <laughs> ah, <laughs> troisième mi-temps fu mu am. Ah, amul kon. troisième mi benn mbër moom troisième mi-temps la doon dugg. ah ma jàpp ne yooyu troisième la. benn mbër armée mi lay dugg. troisième mi-temps lay dugg loolu am na solo léegi ñu ñëw si lu nga xamante ne sànq wax nga ko kon yaa ngi sa métier ba tey wala da nga fay teg métier bi xoolee leneen. non métier bi. Hmm. dama am naa sama métier maa moom mu ngi hmm. sama loxo. Hmm. waaw ah, après ci kanam nag bëgg naa ci def ay projet mhm. mais nii nii nii dafa am ci ay bagage yu ma nekk yoo xam ni. Mhm. muy yan bagage bon liggéey bi may liggéey rek xam nga mhm. may ànd ak kilifa xam nga. yenn saa ma ànd ak moom voyage xam nga yenn saa mu nekk ci ay projet am yu ma ko ciy doxal. xam nga liggéey la quoi parce que ñun ñëpp teraanga la ñuy wut tamit. nuñ ko mën a amee rek. nuñ ko mën a amee rek waaw dañ fa jël suñ temps. noonu la demee bu fekkee moo ëpp nii nii nii métier bi doole dañ fay xaw a teg suñ tànk bu ñu amee nag foofu yenn koom yi ñu jël ko def ko ci métier bi. xam nga dimbale ci ñeneen parce que man mii ngay gis nii man am na ñu ma jàngal métier de. ah yow mii. wër na yàlla billaay wallaay am na ñoo xam jàngal naa leen métier ñu ngi yor seen kii di liggéey. waaw. Mm-hmm. damaa jàng sa métier jàngal ci ay nit. jàngal ci ay waaw. Mm-hmm. loolu am na solo dafa am métier jàngal si ay nit ñu del si waat kañ nga gëj seen écurie yëmbal marin parce reenoo reen dégguñu la fa gisuñ la fa waaw boobu dama génnoon da nga génnoon est-ce que loolu jaar na si yoon mbër mu nga xamante ni ñu toog ñaari saison wala saison dama gisuñ ko mu jaar e-, école am ba pare ba pare ne dafa changé tour dafa bëgg a wane waat leneen est-ce que loolu xel nangu na ko mais réeroo maag samay coach ak samay entraîneur mais say coach mën nga whatsapp bi yomb na da nga am la am de yëmbal marin lañ am mhm. mhm. tey ak mbër yi fa nekk réeréewuma ak ñoom. Hmm. waaw man nga xam est-ce que xam nga bilan yëmbal mare bi ren nu mu demee. bilan yëmbal mare. Hmm, ñaata victoire ngeen ak ñaata défaite. waaw yëg naa combat yi yëg. non non xam nga ba pare en même temps mbër bu ci war a bëri damay ñëw ba sa kër kon naa ko. ñaata sortie ngeen am ren. dañ dama la koy limal kay benn par benn. Oh, bu la neexee nga wax. waaw ah, baax na Siteu bëri na fa daan. waaw Siteu de. waaw. ñu koy wax Boy Diop Boy Diop. nga wax de waaw. waaw bëri na fa daan. waaw Bouba. waaw bëri na fa daan. Baara 205. bëri na daan. waaw mu xool des na de. Mhm. Paul bëree na daan. waaw Paul bëree daan xelay fattu rek mais combat yëpp bu si nekk dem naa kër. mbër bi bëree na daano waaw danger bëree daano waaw maa a xam sax seen waa équipe. xel mooy fattu rek. xel mooy fattu mais combat ku si nekk dem sa kër. damay dem sa kër damay dem sa kër man yëmbal marin laa am de. muy noonu yëmbal marin laa am. est ce que mënuñu séntuwaat euh, le 3 bi ñu jëm Iba Mar maam góor gi wàccaat foo la nan mbër sax. Lamine Mbër Lamine Mbër wàcc fa. waaw le bi nga xam ne ñu ngi teg na fa benn 1 million voilà daaw nag. Mhm. xam nga daaw doon naa ko def. daaw lu may dem voyage dem. voyage micro wàcce ko tuuti. Mhm. li may dem voyage dem voyage. Mhm. su ma ñëwee. amee. damay dem. da ngay dem bu ma demee tenté def sama chance. daaw mun naa ne bi ma mujjee bëre arène nationale Zambala moo ma éliminé. Zambala men waaw. moo ma éliminé quart de finale. mu ngi may seetaan. Hmm? noonu demee kon man waruma làmb ginnaaw même su ma nekkee samay business maay bëre ay tournoi. xaj na si arène bi ngeen ma gëj a gis. dëgg la arène moom gëj fay gis. waaw noonu la demee. Mhm. te dinañ ma gis nag. te dinañ la gis. waaw dinañ ma gis dinañ ma dégg. nañ la dégg waaw léegi yan adversaire ñoo nekk sa kanam yoo xamante ne yaa ngi reefee pour bëreeg ñoom adversaire yoo xam ne boo ko waxee amateur yi dinañ nangu ne carrément ñii maam góor gi ñii kii ñii Lamine Mbër lim ak ñii combat lañ par rapport nga tuddi fay adversaire yoo xam ne dalay dalay leer na ñooñu fi ba suba boo leen seeti woon duñ bëreeg yow Kara Dollé man ak moom làmb la wala moom am na combat. Kara waaw mu ngi woon ci combat. waaw léegi mbëri léegi benn message am pour. léegi mbëri dañuy jël ay dix avance. waaw na de waaw moom mën na jël ñaari avance. mën na jël ñaari avance Njaatin man ak moom làmb la. Njaatin moom sama xarit la moom bàyyi na làmb. daa bàyyi. Ndiaye bàyyi na déclaré sama maaka nga ko joxe moom Ndiaye moom bàyyi na làmb. Ah, Bala Lour man ak moom ay adversaire bu daanoon Ilimane xaw ma. Bala wala bëri fu yow nag caatu paataal. Hmm, waaw waaw waaw waaw. Bala Lour moom làmb la Balla loolu de moom. moo caatu paataal ko mën kii dafa am demee rek. déedéet laamu noo mën a dem rek ku daan moo mën. waaw baax na ba tey. waaw ak mais léegi léegi na ñëw na ñëw. ñu bëri Balla loolu bu ñëw nga jëlul ma kii revanche caatu paataal. waaw na ñëw du doon revanche. non revanche lay parce que yéen a dëkk. Hmm, yéen a bokk écurie gars yi waaw nangu naa. léegi na ah. ñëw ñu bëri. Uh-huh, ak kan. man ak moom làmb la. Tapha bi nga xam man maa daanoon man moom laa bële. nga daan ko bëri ko may chance chance parce que morom lañ quoi. xanaa dafa defaa joloore wala wala da nga jàpp ne num lu nga ko daanee woon ba tey moo fa nekk nga bëgg a nokkatuwaat. takke takke takke bu lamsaar takke mel na bu moom laa bële takke de moom mu ngi fi amagul combat moom it de. waaw hmm? dox ko. takke de mu ngi fi. dox ko mu taxaw. Hmm. est-ce que ñooñu nga foog ne diisuñu maam góor gi par rapport nga jël ñeneen wane waat sa bopp ba si kanam. non non diisuñu. Hmm. diisuñu diisuñu parce que yow soo ma xoolee war ngaa xam ne ñooñu diisuñu sama kaw ah waaw bind bi de moom mu ngi fi nag xaw ma nag lu si biiram déet. ak man maa la ëpp doole sax. yow mii. waaw. encore que yow jeexoo. Ah, kon baax na. man ah. ba ma waxee da jeex damay kontaan xam nga lu tax. déedéet parce que man su may liggéey damay jeex. ah booy liggéey da ngay jeex voilà. waaw ah, dama jamono ji de moom neex ngaa ñeme moom. waaw. ne leen pare naa. ne leen pare nga. waaw booy koy booy ñan nga si gis pour nga may leen sens. ci boo yoo xamante ni ñu ngi si yoon ku si mel ne ay ñoom ardoog ñeneen ak ñeneen nga xamante ni jamono ji def nañ ay jolore ay parcours ay ñoom ardo ardo moo bëre woon ak kan ardo de moo fi mujj daan ay ñoom caatu foora ak boo yëpp jeexal na boo xoolee waaw na ñëw wala tournoi idaali ñi ngi bi ku si génn ci final bi pare nga pour bëre waaw diggante yan xaw caat daaw defaal. waaw ñooñu ñëpp voilà caat daaw defaal man nag moom làmb bu moom moom. te moom mu ngi toj. waaw mu ngi yëngal waaw ne ñooñu am ñu def maa ngi moom. c'est ah. hmm. que man bëgguma combat bu yomb quoi. bëggoo dama bëgg bu tàng jër. Ah. xam du la cuubee kenn du wax. Ah. waaw waaw. nga war a marqué waat sa bopp daal ci làmb. waaw loolu force lay doon. Mm-hmm. Mm-hmm. ni ma ñëwee la. ni ma ñëwee la. Mm-hmm. yëmbal ak jàppale yi préparation combat métti na wala métti waaw métti na moom. Mhm. parce que man parce que man man moom sama côté benn instant garaawul quoi. Mhm. mais damay gis ay mbër yoo xam dañuy am combat lendemain combat. Mhm. affaire yi day metti ci ñoom. xam nga ba nga xam ne benn instant. man sax man billaa wala du du question dama koy mais damay mujj di obligé di leen sax wutal ay solution ay solution billaa wala. parce yëmbal préparer fi combat dafa metti quoi. dafa metti trop. day dem ba me combat am yu beuri yu la mangé ndaysan waaw ah, ta lamb du dooleeg fit rek ak yoy non lamb dafa am yenen yu beuri yu mu àndal. bu lepp paré nak lamb ji day yomb. day yomb mais bu paré wul day xawa am lum laal ci lamb ji quoi. Mhm. léegi bal message ngay lancer autorité yu fi nek wara jappalé sene ci yeung ci sport. ya ñu baña naxante rek. waaw parce que bu fekkee da nga soxla ñew wax wo mbeuri wo xalé ñepp ñëpp seen lépp ñëw génn. bu ñu demee ba ba nga xamante ne ñoom tamit toll nañ seen bis am ay combat wala ñuy am ay match comme ay nawetaan wala yii wala mhm. seen koñ am ay ndox comme nii. Mhm. yoon la nga génn wane sa bopp ànd ak ñoom ci affaire yi. waaw ñu bokk ko xeex. Mhm. waaw bokk bokk xeex daal ndax ñu mën a gañe. ñu mën a gañe. waaw loolu laa leen di wax. ñu ñu bañ a naxante quoi ñu génn xam nga jàppalante ak booy parce que gars yi bi ñu xewlee dara dañuy ñëw mbër foo nekk dinañ la génnee. Mhm. xam nga yenn booy yi nga xamante ne nii dañuy yëngu ci sport. Mhm. fu ñu nekk dañ leen di génnee. Mhm. kon nag ñu demee ba nga xamante ni ñun tamit soxla na leen. ñoom tamit dañoo war a ñëw ànd ak ñun ci xeex bi. loolu am na solo waaw yi loolu laa leen di wax. boo amee kàddu gu mujj gooy tàggatoo. kàddu gu mujj waa yëmbal rek xam nga di leen sant yéen. Euh, tey jii mun naa ne bu du woon ak yéen sax xama distance bi ma toog bëréewu ma quoi chaque instant Cap day ñëw xam nga di ma ah, génnee di ma wone mm-hmm. waaw sama télé la quoi kon nag au ma seen fay aw ma tam fay waaye Yeumbeul di sant sama yaay bu baax di ko ñaanal wér ak mm-hmm. yaay yëpp mm-hmm. waaw di ñaanal sama gaay ñoom Ndiogu gaayeb ñoom Fallou Alpha et puis kon sama yëpp xam nga mm-hmm. waaw di leen ñaanal avancement ak président génération Lamine Mbeur ah. mm-hmm. waaw maa ngi ñaanal moom Mouhamed Dieng la tudd xam nga mm-hmm. waaw ak ñoom Paate gaay xam nga ñoom moo VIP sama gaay yi. di nuyuwaat sama papa Cissé Lo bu baax. ak soxnaam Yaama Lo waaw xam ni moom moom. moo tax moo tere bi ma gëjee bëreeg léegi affaire yi ñaaw quoi xam nga mm-hmm. jàpp na ci bu baax di gërëm tam waa Cité Mixa. Mm-hmm. Cité Mixa sama Cité Mixa la. dëgg la su ma amaatee combat di ngeen xam lan laa am Cité Mixa incha allah incha mm-hmm. kontaan nañ ci moom kooko nekkoon Lamine Mbër dégg ngeen déclaration bu mu def léegi dootul maam góor gi pour mbokk internet yi seetaan rek mbokk yi baaxoo di seetaan Cap TV bi saay su nekk rek. tey kii lañ leen fi indiloon muy maam góor gi junior léegi nag dàq na maam góor gi junior indi na Lamine mbër bi nee na nag bëgg na beneen combat boo xamante ni bëggul combat bu yomb combat bu métti la bëgg. Ah, te ñëw ma cuub la te nee na ku mu war a cuub la Lamine mbër bi nee na si la bëgg a wane carrière wala si la bëgg a dem ba nekk ba dégg daale kon mu ngi noonu daal di jaajëfal. suñ caméraman bi. Kër Chumor maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant ak waa yëmbal mën a yëpp booy su ma amee combat dañuy dagg seen lépp. Mm. di sonn ci contact yi di ma jàppale xam nga. waaw maa leen di béggee daal bu baax a baax ak sama waa koñ bu leen faate mukk